bi mooy ki nga xamante ne xalakakum mu ne moo leen bind min tiinin ci ban xam nga daf la wax ci gannaaw ne xalaka samawaati wal ard moo bind asamaan ak suuf moo bindi lëndëm ak leer ma ne la moo bindi al mawaadul odwiya wal mawaadu wal mawaadul gaziya wala déet moo bind mboolem màddaat boo demee ci ulum mooy science scientifique wala nga dem ci riyadiyat mooy physique ci ngay xam matière yi ma lay wax nii boo demee ci mathématique ñoom ñoo koy jàngal wan nuur matière yooyu ca nekk defe naa tudd nañ ko fi keroog waaye li metti yàlla mooy li yëpp moo ko defar de ñoom yéeféeri nag di jël yàlla di koy def seen moroom mooy tubaab yi rek jël yàlla def ko muy morom mu ne huwa alladi yàlla du seen morom parce que huwa alladi mooy ki nga xamante ne xam nga boo waxee nit ne ko du ma morom boo ko war a teg ku ne du ma sa morom waru ko teg ci dara sa baay moo lay wax ne du ma sa morom parce que moo futteeku jur la sëriñ wax ne du ma sa morom moo jàngal la sa eh, docteur moo lay wax ne du ma morom moo futteeku faj la waaye ku dul sa jëkkër moo lay wax na du ma sa morom mu futteeku ñëw takk la du duma sa morom ne ko foo ko teg foo ko teg am na fu ñu ko teg wala déet daan su mhm. yow nag booy wax nit ki du ma sa morom teg ko fenn wala déet xanaa da ngeen bëre nga daaneel ko bisimilah nga ne du ma sa morom wala déet da ngeen jëkkalante dara nga ko ci nga ne du ma sa moro na ngeen ut dara nga uppale ko alal nga ne ko du ma sa morom ci façon boobu ba uppale ko xam-xam du ma sa wala de uppale ko barke nga ne du ma fii nga ko mën a teg waaye koo xamante ne gis nga ko yi ma la wax juru la jàngalu la gis nga ko euh, naka noonu itam euh, faju la bu la ne sax du ma sa morom ne ko foo ko teg ñii mën ngaa moromanteeg ñoom waaye ku dul ñii ma la wax na man moromanteeg ñoom Ah, awa fu mu ko du ma sa morom ne ko sama morom nga mu dem indi ay militaire am dugale ci kaso doole bi nga bëgg a nga ne ko waa du ma doo sama morom léegi mooy ki nga xamante ne xalaka ko moo leen bind xam nga fi mu leen binde min tiinin ci ban ban ban bu soof bii lanke gën a passé neen ci la la yàlla binde xoolal matière bii sax moo gën a for matière bi yàlla defaree nit matière ay plastique bi mooy ki nga xamante ne xalakakum bind na leen min tin ci matière xam nga da ngay dem ci montal ñu defaree ko plastique ak biñ defaree weñ ban moo gën a cher biñ defaree weñ bi saatu suy sira biñ defaree weñ ak bi ñu defaree xaalis ban moo gën a cher biñ defaree xaalis biñ defaree xaalis ak biñ defaree or ban moo gën a cher bi ñu defaree nag jamaa ak bu ñu defaree or bu gën a seerati yéex na waay wala de kon benn bu ci nekk ak matière fooraayam yàlla na xam nga fi mu defaree nit ma moom ashadu xalqan am man xalaq na ndax ñooma man wala maa leen man ci li ñuy defar inna xalaqnaahum na tiinin laazib maa leen defaree ci matière matière ban bu tooy xat ci laa leen defaree te xoolal ñoom ni ñu mel xoolal sa bopp rek sa bi boo laalee fee bot bi di jóg lu yéeme wala de waaw ah, ni ma ko bindee keroog fan yi ci internet gis nga ko ni man daal def ma jaaxal bët ak loxo alaaka bi jaar seen diggante faal lu fay metti baaraam bi damm wala mu faxoj bët bi di jooy bët di jooy rongoñ ya di tuuru loxo ñoo di koy fompal déggoo nañ de wala de amrun xarib wala de xoolal loolu la dal fee ca baaraam ba fee mu ñëw feeñ ci fan ci bëti boromam di jooy tadaalahu sahiral a bi sahri wal humma xoolal loolu nga jël ca bopp ba mu am lu fa matt tànk ba mu am lu fa matt ci saasi rek nit ki xam ban la yaram bi yëpp nangandoor ko las naa ko yàlla du seen morom ndax huwa alladi mooy ki nga xamante ne xalakakum moo leen bind mm. min tiinin ci ban la leen jële bindew leen jama bindew leen xaalis bindew leen or ban la leen defare war ngeen ko yab yéen tubaab yi lan la leen yàlla defare buñ tawee ñaari fan ñetti fan te ne te di xëy wala de seen gémmiñu buñ toogee bés lëmm te soccuwuñu yemu fa su ma mu dal di dogal ajalan app ne heure ngeen di dee ku la appal nag heure bi ngay dee bindi la fare ne heure bi ngay dee te mënoo ci tus kooku war nga ko def morom am na ñoo xamante ne yab leen ci ñàkk jom la bokk mooy ñu ma la wax ci gannaaw sa nga yab ko da ngaa ñàkk jom da ngaa ñàkk jom parce que du sa morom jëkkër nga yab ko da ngaa ñàkk jom parce que du sa morom tax mu ne la mm-hmm. wa ajalun musamman indahu mm-hmm. dat ba nee na def ko bind summa kada ayalan mm-hmm. mu daldi bindal mm-hmm. ni heure bi ngay mm-hmm. wa ajalun musamman beneen dat boo xamante ne indahu kooku nag pour moom kese la mooy ban mooy àllaaxira pour aduna tukki yéen lu ngeen ci man tubaab yi dañ ci man dara adduna ñàkkaa tukki tubaab yi dañ ci man dara da ngay seetaan benn film boo xamante ñu ne bi tukki ñu defar benn safinatu lañ ko tudde pour ñu nga xamante ne ñoom ci seen boobu dañu mën a gis ko sowe mm-hmm. mën a jaar foofu dem ci jaww bi mm-hmm. amul mënta nekk jéem a gàttandu ba di koy sànni ay bombu atomique yu mm-hmm. kenn xamul kon ñu dem kon huwa alladi xalaqakum moo leen bind min tiilin jëlee leen ci ban benn mënu leen xiccoog moom ñu bind leen ci matière bu fort matière bu suufee la leen bind summa kada ajalan dal li defal nag ci dat ne date bi ngeen di jeexal loo ci man date ba buy jeex rek jeexal nga mën nga koo changer yow amul kenn ku mën a changer datam fan yi maa ngi leen ko wax dafa génn ci BBC ne London Fall kon yàlla mu ne su ma kadaa ajalan defal la date te date ba mënoo ko changer même boo xamee kañ la mënoo ko changer wa ajalun musamman mhm. defal la beneen date boo xamante ne indaw boobu moo ko téye mhm. mooy keroog bi àdduna di tukki mhm. boobu itam lu ngeen ci ma léegi seen morom <coughs> te tubaab yi jël yàlla def ko muy morom <coughs> su ma antum ngeen toog nag ci biir yii yëpp mm-hmm. tamtaru naa naan da ngeen di wérante di wérante ci yàlla mm-hmm. di ngeen ko yàbb rek waaye yàlla moom war ngeen xam ne mm-hmm. mu ngi fi wala déet ki toog di wax naan est-ce que yàllaa ngi fi dafay font rek benn waaye dafa dugg ci benn coiffeur waa ji gars wat noonu gis nga ko ci biir waxtan waa ji ne ko xay yàlla amul ah mu ne ko yàlla amul lu tax nga wax ko mu ne da ngay gis ñuy feebar ñiy taxawalu ci mbedd yi ñiy nekk ci coono mu ne loolu yëpp yàlla da koy gis yàlla bu fekkoon ne am na yërmande upp na fa dana leen sooy waa ji watu fa rek génn dem indi ñooñu di taxawal man di ko taxawal ci mbedd bi karaw yi dembee mu ñëw indi ko ne watkat amul watkat moom amul mu ne ko watkat amul sama wat la léegi mu ne xoolal bopp ki kii boppam nu mu wat watkat am na fi mu ne ko moom moo ñëwul fii moo tax watuma ko mu ne ko jeex na di nga gis problème yi dañ demal ci yàlla la ci ngay bëri problème waaye demal ci yàlla rek yàllaa ngi fi moo tax mu ne suma antum ci biir loolu nag mhm. ngeen toog nag tamtaru di jéem a wirante da ngeen di fontu yàlla rek waaye yàlla moom mu ngi fi mhm. ngeen bu leen ko def seen morom kon xoolal yii mu wax kenn mënu ko xalaka samawaat matière ya mu àndal algaziya ak euh, nu mu tudd euh, carbone bi gis nga ko euh, nit di noyyi yëpp ci asamaan bi wala ardi bindi matière suuf gis nga ko lafa nekk garab yi xànq yi gis nga ko ndox mi wa jaala zulumaat matière yooyu mu def leen almawaad alqawiya wa nuuru ak yi nga xamante ne almawaad gis nga ko al na yooyu yëpp yàllaa ko defar summa alladina kafaru ibn yamtaruna ñu bëgg a def yàlla mono morom yaadiluna bëgg a def yàlla morom huwa alladi xalaka mu walbatiku bind leen te kenn mënu ko summa kada ajalan dal di wax ne heure bi ngeen di dee yëmu fa wa ajalul musamman indahu beneen boo xamante ne yéen ñëpp ci ngeen dee mooy adduna bu tukki te mënu leen ko charré suma dun ngeen toog di werante ci mbiru yàlla da ko fontu da koy fontu da ngeen koy fontu yëpp di jara bàyyi wa huwa moom moomu moom moomu asamaan si bind suuf si mm-hmm. bind lëndëm yi mm-hmm. bind leer yi mm-hmm. bind leen ci ban te datal appaleen dat nag te adduna ci lay tukki itam huwa allah kooku mooy allah fi samawaati boo demee ci asamaan moom la de wa fil ardi boo demee ci suuf moom mel ni mi la de lépp moo koy lijjanti yàlla rëy yaalamu te moo xam itam sirrakum la ngeen di nëbb wa jahrakum ak la ngeen di feeñal yàlla la de mm-hmm. ku dul yàlla xamul li ngay nëbb mm-hmm. yàlla rek moo xam li ngay nëbb mm-hmm. wala de même malayka yi sax am na loo xamante ne xamuñu ko ci yow da xalaat malayka yi xamuñu ko de malayka xamu ko il faut nga wax nga jëf malayka door a xam yàlla nag nee na yaalamu sirrakum la ngeen di nëbb moo ko xam wa jahrakum la ngeen di feeñal moo ko xam ñu ne la ngeen di feeñal mooy la nga wax ak la nga jëf la nga xam mooy sirrakum nag mooy langa xalaat mhm. ak langa bëgg mhm. lii la ñuy tuddee sirrakum yàlla rek moo ko xam léeg-léeg jaxru ñoo mooy nga wax te nit ñi xamuñ fi la tax nga wax fa waaye yàlla xam na mënoo mhm. ko nax wala déet léeg-léeg sirru ñëw nit ñi xamuñu sa jabar mën na xalaat ne xam naa foo moytu lii la de wala déet sa xarit itam naka noonu ki nga jëflanteel te jéejin maanaam mu xel mati ne lii la war a doon waaye ba léegi xamul lépp yàlla moo matal xam-xam moo tax mu ne yaalamu sirrakum moo xam la ngeen di nëbb mooy la ngeen di bëgg ak la ngeen di xalaat wa jaharakum ak la ngeen di feeñal mooy la ngeen di wax ak la ngeen di lan ak la ngeen di jëf la ngeen di jëf wa yaalamu te moo xam itam maa taksibuuna seen jëf moo ko xam de da ngeen di am yele yàlla moo ko xam wa yaalamu moom kese moo xam maa taksibuuna ëllëgi du sangam la muy dooni kooku yàlla rek moo ko xam keroog kii dañ koo laaj jubóo ko xamante ne tey ji mu ngi doon daal daan dooleem di wàcc bu ëllëgee nga gis ko mu am ay million am ay milliards wala déet kooku yàllaa koy def wala déet nga gis xale boo xamante ne ndeysaan mo nga juddoo ca àll ba wala déet Maradona nga xamante ne te xam nga dañu gën a yéeme kenn mënu koo gàttal projet bi <laughs> yey sonn rek yuriduna an yutu nuurallahi bi afwaahihim wala déet wallahu mutimmu nuurahu il faut que nag mu am ay matt yoo xam ne moom la yàlla di toggee taalam bi mooy noonu yoo nga xamante ne ñoo lay contre yow yéen a nekk mattam yi na muy taalee takkam bi <laughs> moo tax yàlla ñu yàlla musal <laughs> ñu ci ñuy contre yàlla boo koy contre yow lay far def safara matt taalee la yow nga yóbbu xoolal ma lool moo tax bu ko defee seetal yàlla jarul la def morom te tubaab bi du ñuy def li baaxa wala déet xakim ah, ba wax ko anta turid wa na urid wallahu yafaalu maa yurid bëgg nga man bëgg naa waaye bëgg-bëgg yàlla nag mooy wéy de konoo yàlla bu ma taksi boon tey jii mënoo taxaw wax ne diw sangam bi mooy dooni ëllëg bi jawra foog na yaaye jam mooy bala wa maa taatihim nee na du leen ñëwal nag mm-hmm. min ayatin benn benn benn ca kéemaan ya min ayat rabbihim ca kéemtaanu borom ya mm-hmm. illa lu dul kaanu danañu ci kéemaan yooyu moori dina dummóoyu ko mm-hmm. xoolal ma loolu rek loolu palaaw yéeféer la yéeféer noonu lay def wa qaala alladina kafaru la tasmau li hada alqurani walgaw fii yonte bu doon jàng alquran ñoom ñu gis nga ko fente seen waxtaanu bopp fii mooy indi woon sa unzilu mi ma misla ma anzala la nazr bun xaari bu yonente bi toogee fii di jàngale alquran moom mu toog fee di nettali fenam yi rek dégg naa lii an na farit mbolin ama ba rek bu defee xam nga nit ñi ay fen la ñu gën a bugg ñu dem foofu bàyyi yonente bi sallallahu alayhi moo tax yonente ba mu ko jàppee nii la ko ren li muy bari bëri yërmande moom rek la ko def moom rek la ko mos a def téye ba ñu téye ba mu dëgër ñu dagg ba bat ñu rey ko ci kanam alayhi salaatu wasalaam parce que caacaayam bu metti gis nga ko mu ne nag ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo nekk yéeféer yi boo leen indilee alquran ñu dummóoyu ko romb rombulu ko pour xeex ko moo tax boo demee euh, fan yee kon yàlla nee na wa ma taatiim du leen ñëwal min ayatin benn kéemaan mm-hmm. illa lu dul min ayat rabin ci kéemtaanu yàlla illaa lu dul kaanu ñu nekk an xaa ca kéemaan yu moo ri ñu du mooy aaya bu wàcc rek ñu du mooyu aaya bu ñëw rek ñu du mooyu ñun dañuy du mooyu de bëri li ñu dégg ci alquran li ñu neex rek la ñuy dégg boobu itam baaxu ci dañu war a déglu yéefiri nag loolu la def yonente bi pour rek man ko doya dal buy jàng alquran ñu di koy romb romb lu buy wax jàngale alquran waaw ñu dem toog fee di waxtaan wala ñu nekk ci seen ataaya wala ñu nekk ci seen xerem ya toog fee di xakataay noonu lañ doon def yonent bi te xam nga loolu xam nga loolu baaxul wala de ah kii wax fullaam di wax yitteem boo ko doyee dalee ci biir waxam rek ci mo ci saasi rek dafay jànni dafay dafay jëppi wax ba noppi lay bugg a def wala de dafay noppi lay bugg a def ñoom yéeféeri nag point boobu la amoon di koy xeexee yonent bi mooy yonent bi buy wax alquran rek moor yi dinañu dummoyo ko mel ni dégguñu ko di koy romb rombulu di koy romb rombulu boobu nag baaxul waaw ah, romb romb lu boobu noonu mooy indi bi yonente bi waxoon an ala uxbirukum ani nafari salaas ñetti ñooñu ñoon ñëwoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn ki ñëw ñoom ñetti ñoo ànd kenn ki ba ñu demee bi jubal jumaa ji mu ne fiw dem kenn ki ñëw toog mu gis mu dugg kenn ki ñëw ca gannaaw mu toog yonente bi dem ba waxtaan bi di waaj a jeex bi dars bi di waaj a jeex mu ne bu leen ma wax leen gaay amma bu dee kee dafa dumóoyu yàlla yàlla dumóoyu ko kon dumóoyu yàlla wóorul wala de yàlla boo koy dumóoyu rek mu dumóoyu la te ni mu lay dumóoyoo nag mooy lépp loo xamante ne dana taxati nga jege ko mu barrage ko jaar sa diggante loolu la yàlla mu ci boobu mu ne bu dee kuy ku ñaareel ki mu gis yërmande yàlla mu fàttu ci biiram kee nag mu ne mu ñëw rus yàlla yàlla rus ko wala de kon yéeféeri ñoom dañ doon xeexee yonente bi ci dummuyu lan dummuyu alquran tey jii nii nga xool suñu télé yi dañ dellu si wàcc suñu bopp ñu ngi wax ne moor yi diina yéeféeri ñooy dummuyu alquran waaye ñun nag voilà boo demee ñuy sonal li ñu ne ajjuma xawma ci la te programme diine samedi ñu fecc Youssou Ndour dimanche ñu teg Youssou Ndour altine ñu teg Youssou Ndour euh, talaata ñu teg Youssou Ndour lu tax ñuy teg yëpp Youssou Ndour wal fajiri wala yaalin ashiri mu ne noonu lañ ko tuddee ñu ne diine ak jamono du benn dëgg jamono kese la jamono politique wa wa zaman waaye du politique moom rek lay wax di caaxaan rek léegi ñoom yéeféeri ñooy dummóoy wala ñu ñooy dummóoy ñu auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani wala de ñu ñooy dummóoy wala yéeféer yooy dummóoy ñu ñëw du mooy xoolal Touba TV lan lay teg xasaayit rek wala déet programme diine rek amul guddeeg bëccëg heure bu nekk loolu lay teg heure bu nekk loolu lay teg Youssou Ndour sax bu tegoon sax ba sax muy fecc rek ñu ne waaw fookat la ba mu juddoo be léegi loolu la xam ba mu wax naan wala ni xaalis neex na boobu xale la de amagul ñaar fukki at de alquran nee na ñoom yéeféer yi mm. dañuy di mooy alquran ñun nag waxal rek te ñu ñoo moom télé RTS ñan ñoo ko moom jullit ñi wala de RTS 2 ñan ñoo ko moom te du Njaay la sant xaw ma tukulóor la tëdd ah mu ngi noonu Walfadjri kan moo ko moom mu ngi nii balaa ngay am télé suba nga naan bu amul fo du du dox comme gars yi ñuy wax naan bu amul cigarette sa bitig rek du dox yooyu bu ci dugg mu ne kon wa ma taatihim du leen dikkal min ayatin benn benn ci kemaan ya min ayat rabbi mu ci seen kéemaanu borom ya illaa lu dul kaanu danañu nekk anha kéemaan yooyu ñëw moori diina du mooy nañ ko dégluwuñu ko faalewuñu ko demal Sénégal Fall lii yàlla koy wax de waaye ñun ñëpp ci lañ mel allahu wahidu na fi boote bi set du dara wala de wala dina ka nu mu tudde illa kaanu ana di du rek lu dem ci wàllu alquran daal neexuñu jullit yëpp laa wax neexu leen def leen neexul nee na weddi nañu bil xaq dëgg nag mm. lamma ba nga xamante ne jaahum ba leen dëgg ñëwale mooy alquranul karim wala bil xaqi mooy Seydina Muhammad lamma jaahum bam leen ñëwale ñoo ko weddi wala de Seydina Muhammad alquran nag mënoo ko séparé fogon fakat jaa fakat kadabu weddi nañu bil xaqi alquran lamma jaahum ba ñu ñëwee fa sawfa yaati waaye dana leen ñëwal am ba u xibaaru maa la nga xamante ne kaanu nekkoon nañ ci alquran bi yestaadu ndi koy fooy li ñu xeeb ni ci alquran parce que foog nañu taalibe ፊደል ታልቤ ለእንጀነ የብቻ ያዱነት ታልቤ ለእንጀነ የብቻ ያዱነት ኒድፍ ቲያተር የብ ማንኝ ኮሮምቡሮም ብሎ ይዞ ኛዋልኩ ደፊዩሬ ዳንቲሞ ወለደ ታልቤ ኛም ለእንጀነ ያ ወለደ ተፑርታ ሶፎሪ ደነኝ ይደፍ ሚኒዘይ ደነኝ ይደፍ መድገኒዘይ ደነኝ ይደፍ ሚኒስትሪ ደነኝ ይደፍ አይደጋ directeur directeurs yi DG yi danañu def ay dégâts commerçant yi danañuy def ay dégâts waaye duñu gën a dégâts kenn dégâts sëriñ rek dégâts ci yooyu dégâts yu sëriñ boo waxee ñu ne ah kañ loolu dafay am xanaa yeneen yi amul maanaam dañuy foyee alquran rek dañ ko xeeb dañ ko tuuti dañ ko doyadal wala de waaw ci dëgg dëgg nag li mu wax ni dafa am même da ngay gis koo xamante ne dafay nekk ci biir ay morom di kaalawu sax ñu gis gaa di koy anjiiɗa waaw di koy reetaan xeeb ko waaw nga gis koo xamante ne ndeysaan dafa nekk ci biir ay moroomam waaye du sàmmanteeg diinam ñu ne ko cher la xamul tara ñu def ko muy dox bi yestasi wuna yow daal na nga doon jullit rek sàmmanteeg sa diine rek ñoom ñu xeeb la yàlla nee na dina am bés nag danañ xam lañ doon xeeb di koy doya daal mm. ndax muy dégg wala du dégg te bés baa ngay ñëw ne keroog day ñëw na keroog di nga xam ndax ay naxeen bàyyi la ndax ay fox la ndax ay caaxaan la keroog da nga xam ci de yal nañu yàlla yërëm kon moo tax mu ne la fa sawfa dina yatihim ñëwal leen am ba u xibaar maa la nga xamante ne kaanu nekkoon nañu bihi ca loolu le yastahzi'uuna di koy foye alam yaraw ndax dañu gisul kam ñaata ahlak naa laa sànq min qablihim ci li leen jiitu min qarnin ci ay maas mm-hmm. xoolal li fi nekkoon ci ay maas ana ñoom Hitler ana ñoom de ana ñoo ña leen jiitu ba ci ñoom Kaysar ana ñoom Iskandar ana ñu ba ci ñoom Seydina Moussa Seydina Ibrahim dama dem ba ci kaw ñoom Seydina Nooxin dama dem ba ci Seydina Adama yàlla jëlee na leen fi yéen ngeen foog da fi def yéen yàlla jëlee leen fi ñoom yàlla jëlee leen fi bàyyi leen fi mante nam leen fi jëlee noonu la leen fi jëlee kam ahlak naa bari na la ma sànq mm-hmm. min qablin la leen jiitu min qarnin ci ay maas makkannaahum mayoon naa leen doole mm-hmm. fil ardi ci kaw suuf mm-hmm. maa loo xamante ne lam nu makkin lakum ba léegi ma yogguma leen ko mayoon naa leen doole boo xamante ne ba léegi jotagu leen doole boobu kon léegi su fekkee ne man man naa ñooñu ba dóor leen yéen nag fan ngeen may texe wa arsalna yónnee woon naa asama asamaan alayhim ci seen kaw mi daraara muy taw rek mooy ma may leen xiiwal wa jaal naa ma dal di def al anhaara dexiya tajri ñu ngay daw min taxtim ci seen ron ñu naagu ci biir xiiwal yi yal na bu ñu naagu waay yàlla nee na fa ahlaknahum man ma ñëw alak leen bi izunubihim seen tooñ yu metti ya moo tax ku yàlla mbugal rek mbugalam nekkul ci nekk yal na bu ñu yàlla jàppe suñuy bakkaar yal na mu jégal suñuy bakkaar te yàlla bu ñu dund ci bakkaar fa ahlak naam yàlla nee na sànq naa bi zunubim ngir seen bakkaar ya wa ansha'naa nee na sos na min baadihim ci seen gannaaw karnan karnan karnan gis nga ko ay maas aaxarina yeneen maas ma alak ñi indi ñeneen ma alak ñooñu indiwaat ñeneen ma alak ñooñu indiwaat ñeneen te kenn mënul défendre sa bopp te la ngay xaar rek mooy la dal ñee dal dal si la kon léegi lu xew lan mooy li war a tax ngeen jël yàlla dafay def morom te yàlla moromantewul ak yéen parce que li muy def mënu leen ko te moom rek moo baax ci yéen nag moo leen moom rek moo leen mën a régler ndax tey jii nii bu ñu yëkkatee guerre ci kaw ñay yi ñay yi jeex moo tax mu lay wax ne man yàlla ma seen morom kay ni ñoo fi nekkoon ma may leen doole jëlee naa leen mm-hmm. ñeneen ñëwaat ma may leen doole jëlee naa leen mm-hmm. yéen ngeen ñëwaat ma mayaat leen doole jële fi rek mm-hmm. suñu xadaara bii nga foog du fi mas a jóge dina fi mas a jógee de walaw wala walaw nazal na e eh, bu ma wàcce woon alayka mu ñëw wàcc ci yow kitaaban beneen téere bokkul ak alquran boo xamante ne dañ ko bind fii xirtaasin ci ay kayit bu ma wàcce woon téere boo xam ne kayit lañ ko def lii nag tontu la gars yi dañu wax ne waaw dégg nañ ne Moussa alluwaay dañu wàccoon ci kaw asamaan mu teg ko ci loxoom lii mooy ñëw di ñuy wax te ñu wàccee ñu ko indi na kayit ñu liiral ko suñu bopp yàlla di leen di tontu walaw nazzalna alayka alkitab bu ma wàcce woon ci yow téere téere ba nag fii xirtaasi ñu bind ko ci lan ci ay kayit fa lamasuuhu ba ñu lamb ko bi ay diim ak seen loxo ba ñu lamb ba ñu laal ko ak seen loxo gis nga ko ba ñu lamb ko ak seen loxo la qaala lazina kafar ña nga xam ñoom ñooy yéeféer xam nga lan lañ say tont lan lan da cay tontu faal in haada lii duul dara illaa la dul sihru njaber mu biiru bu leer nañ loolu lañ la cay tegal li njaber la waaw wàcce woon téere alquran mu nekk ci kayit jamaa boo xamante ne dafay leer ñu teg ko ci kaw suuf dañu gën a ne eh, lii njëbeer la lii njëbeer la duñ ko gëm duñ ko gëm wala de moo lay won ne ngëm teguwul ci kéemaan ku bugg a teg ngëm ci kéemaan daanu parce du tax nit ki gëm xoolal yéeféer yi yàlla nee na yàllaay wax de bu ma ko defoon danañu weddi te yàlla xam na bu fekkee ne loolu am na indiwul et mu doon jaan tax na Firawna gëm wàcceewul téere boobu noonu muy tawraat comme ñoom li ñuy laaj ni yàlla wàccee ko directement mu bindee ko bi gis nga bi yadil qudra Moussa dafa toog muy ñëw di bind ci montagne yi pare daggal ko ko jox ko ko ne yóbbul juróom-ñeent allo mu ne ko yóbbul ci sa gaay ba mu ñëwee tax na gaay gëm ñoo fi gën a saafe kon yàlla xam na li muy wax bés bu ma jëloon alquran bi def ko noonu itam yéeféer yi ñi war a nekk yéeféer daal dinañ doon yéeféer mm. kenn mënu ci dara wakaalu ñeneen toog di wax naan mm. lawla unzila mm. e bu ñu wàcce woon alayhi ci moom malakun bu nekkoon malayka e malayka bu ñëwoon doon yonente ñoom ñooy wax lii mm-hmm. ñu ne bëgguñu Seydina Muhammad nekk yonente mm-hmm. te malayka yi bëgg di barkelo ci Seydina Muhammad mm-hmm. ñoom ñu ne Seydina Muhammad e bu nekkoon yonente lawla unzila alayhi malakun e <clears throat> bu ñu wàcce woon téere bi ci malayka wala e bu ñu wàcce woon malayka mu ànd ak yonente bi di koy garde di koy wax naan axakañ dëgg la wax yàlla ne walaw nazzalna malakan gis nga bu ma wàcce woon malayka mu ànd ak seydina muhammad la ku diyal amru keroog la mbir yi di jeex waaw xam nga li ko waral qul huwa allahu ahad allahu samad noppin lam yalid walam yulad waxuloo dégg walam yakun lahu kufuwan ahad malaayka bi rey na yàlla ngay wax naa waxul de malaayka bi nga ne yàlla waxul dégg malaayka man du xaar lool daf lay rey yow xoolal yow yow tey sa sëriñ di wax nga ne ko la mu am fa toog di wax naan <laughs> kooku dina reer <laughs> wala du ndekki de malayka nag yàlla di wax yow nga ne yàlla waxul dëgg malayka xamul suñu masla yi de moom daf lay far rek nga jóge fi benn yoon wala de moo tax mu ne bu ma yónneen malayka affaire bi jeex waaw moo tax bul di ñaan ne gis ko ay gis ay malayka yi ni <laughs> malakul mawti lan la am malakul mawti lan la yaa <laughs> dul yàkkamte yaa ngi kon walaw nazzalnaa bu ma ko wàcce woon mm. malakan ci kaw malayka mm. waaw la qudiyal amru mm-hmm. keroog la mbir mi di jeex mm-hmm. bu malayka ñëwoon ànd ak Seydina Muhammad mm-hmm. amul nii buy wax ku ko weddi mu rey la la qudiyal amru summa ci biir loolu laa yunzaruuna malayka du toog di leen di xaar comme yéen tamit nu mu toogoon di xaar noonu bi ba ngeen di tuubi malayka xëjul ci loolu parce weddi yàlla rek moom far far na la rey na la bu yàgg kon ñoom ko ñu nga naan malaayka te ñëw ànd ak moom te malaayka mu ñëw baaxul ci kon moo duma leen ca topp parce que li ko waral mooy ne te léegi dañu xamagul allahumma salli ala muhammadin sadaqallahu alazim